chers internet yu Ken Bugul TV dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ñu commencé kook vox populi yi nga xamante ni jamono ji dafa paralysé agent de santé yi ñoom tam commencé nañoo grève ndax waa ànd gësam fi mu toll nii ñoo koy def alerte ne dinañ tëral ko ci mois de février bii jëm mois de mars te duñ ko arrêté sax mars nag seen grève yi day continuer yéenekaay bi dañoo xamante ne am na benn marche bu rëy bu ñuy waaj ñoom waa ànd gësam di kuréelu agent de santé yi nekk ci suñu hôpital yi xamal yi kay yemul foofu rek gannaaw éducation beeg santé bi suñu ASP yi tamit ñu ngi grève yéenekaay bi dañoo xamal ne barki démb la génnoon ci terrain bii waaye dootuñu ko defati ndax xeex bu metti lañ doon amal seen digganteem ak policiers yi ñu leen di sànni gaz lacrymogène yéenekaay bi dañoo xamal ne fépp ki Sénégal la ASP yi génnoon di naqarlu seen salaire yi nga xamante ni matul dara lu dul waaye Birame Faye di DG ASP yi mu ngi xupp ASP yi ni participé woon nga ci marche yi amoon ni ki barki démb danañ jël ay sanctions yu diis teg ko ci sa kaw les éco yéenekaay ubbi xët bu yaatu ne fi mu toll nii kay Sénégal fépp ay metti ndax grève yaa ngi mel ne tulleeg male jamono ji ñuy wax ak yéen agent de santé yi nee nañ dañuy grève ndax ñoom agent de santé yi leen naqari mooy gis nañu ne am na ay agent yoo xamante ni ñu ngi ci wàllum agriculture bii lu mu deedee yokkaat nañ seen salaire yi ci 250 000 jëm 300 000 francs ba ci inspecteur du travail yokk nañ gi luñ ci bañul ak ñoom duñ ko ci bañ ci jamono boobu yéenekaay bi dem na ba diwaanu Ziguinchor te ñuy xamal ni Ousmane Sonko fi mu toll ni naqar dëgg la am ndaxte jamono ji ba léegi mënta génn réew mi sans autorisation juge bi ndax Ousmane Sonko jamono ji dafa nekk ci contrôle judiciaire waaye avocat mi ni ki démb bindaan nañu beneen badaaxal jox ko juge bi da koy xamal ne ko gis nga fonction bu bees bii Ousmane Sonko yor dafa laaj muy génn réew mi di lijjanti ji ay projet kon nag yëkkati leen contrôle judiciaire bii mu mën a dox ay soxlaam enquête ni commencé nañ ko cee gis yéenekaay bi ne booy yi ñu ndaw ñi bari nañu lool ci mairie yi ba noppi nag jeunesse bii ñu bees tàq la choisir yéenekaay bi ñu xamal ne gis nga boo moytuwul ci renouvellement classe politique bii lañ jëm professeur Moussa Diaw di ko dëggal ci biir yéenekaay bi ne na la espace politique bi ci boppam moo commencé changer ñu ciy gis ay tête yu bees te ñu ci gën a lii ni a fal bees ay jeunes lañ seetlu la boo xamante ni ñëpp ko defandoor waaye nag suñu auto politique bi moo soxla deret yu bees ci ay jeunes yoo xamante ni dañuy engagé xam fi ñuy teg seen tànk ngir sens seen gox l'observateur ubbi xët bi yaatu moom jagleel ko Macky Sall bi nga xamante ni jamono ji ay stratégie yu graaw la génne teg ko ci table bi waaye lu jaaxal lépp ci transhumance bi nga xamante ni mu ngi mel ne tull ak male ci camp mooy Macky mii dafa mel ne dafa jàngul ci recrutement bi mu defoon ci Idrissa Seck Banda Diop ba ci Moussa ndax tey ji bu amee échec ci élection locale yii ñoom ñoo ko waral yéenekaay bi dafa taxaw seetlu ci choix wu ci Bamba ne lool nag ci wàllum transhumance ko ci élection présidentielle yee ñu génn mën na presque c'est la même chose ni mu def ci élection locale yii dañ cee génn teguñ ci sax ay semaine mu daal di recruter Bamba ko ci wetam yéenekaay bi def taxaw seetlu ci recrutement yi ñu génn dana fa jéem jël benn punkal moo xamante mooy renforcer électorat rawatina ci élection législative yi ñu jëm la tribune yéenekaay ne transhumance kay yaakaaroon nañ ne jeex na Sénégal waaye gannaaw demul Idrissa Seck Modou Diagne Fada Baldé Moussa Sy Bamba Fall li Gueye ne xoolal rek gëm sa bopp bépp ponkal moo xamante mu ngi woon ci biir coalition bi Macky mu ngi koy jël benn par benn yéenekaay bi laajte est-ce que Macky Sall mii day bàyyi xel Bougane Gueye Dany lii moo jar a laajte Direct News ne en tout cas daal élection locale yée ci daanu Touba Benno Bokk Yaakaar dafa daanu ma fa nekkoon yéenekaay bi ne gis nga Touba gii boo moytuwul fa ñu jëm ak moom moo di élection locale moom dootu fa amati ndax léegi constat politique amatul campagne mën la nañu delloo lépp sëñ Muntaxa mii ndax mooy xam li gën ci Touba tànn ko li ni mel moo am ci élection locale yii ndax même moo di ci diggante ma yi ñu génn moo tax fi

la du dégg te du wax amul lu dul fukki at ak juróom benn ay xale yu góor ñoo ko kidnappé woon ci jamono bi nga xamante ni réew mi yépp ñoo ngi concentré ci mbedd yii di wane seen mbégte ci coupe bi nga xamante ni suñu gaynde jël lañ ko ci la juróom-ñaari xale yu góor sàcc xale bii ci biir mbooloo mi dugal ko ci benn kër goo xamante ni pareegutoon yéenekaay bi ne mbir yi mu ngi am le 6 février bii ñu génn te jamono ji may wax ak yéen xale bi dafa na la nekkatul ndax xale yu góor ba noppi tëddee ko di ko awlantoo ñoom toll nañ ca juróom-ñetti ba noppi ca lendemain bi le 7 février ci lañ ko bàyyi ca bâtiment boobu nga xam ne pareegutoon xale bu jigéen bii fees jaaxal ñëpp kay ci enquête bi moo di juróom-ñaari xale góor yi nga xamante ni jàppoon nañ leen ci juróom-ñett yi accusé leen na ñoom ñoo doon tëddee xale bii nga xamante ni muuma la ñoom juróom-ñaari xale góor yëpp mujjee nañ leen a libéré ndaxte ñoom enquêteur benn preuve pour jàpp leen et examen gynécologue bii dëggal na ne xale bu jigéen bii dañ ko doon tëddee ñi ko doon tëddee ëpp nañu ñaari xale yu góor yooyu ñu jàppoon enquête bi yéen ñi doon jooy fan ngeen di jëlee ay produits yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha léegi nag seeni rongoñ mën na fer jot ci produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy yomb na lool ndaxte adresse mu ngi ci poste Thiaroye yi arrêt table Tivaouane neex a jot lool képp a am ne nii moom la leen kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy jagleel gaawal gaaw woote au 77 502 15 63 wala 76 300 ak kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy seen jaaxle jeex na su dee yow ci ne ni da nga am cas d'urgence bu mënutoo toog di xaar gaawal gaaw woote au 77 030 48 40 kon nag mbokk yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy yombalal na leen yoon wi ngeen di jaar ngir mën a jot ci produit am yii numéro yangu que képp ku ci wootee da nga jot ci ndawi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha yi ñu daal lay tegtal ba nga mën a accès ci bërëb bii jot ci produit yi faj sa tawat bu dee rendez privé yi kenn bëggul bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy jox na leen ñaari bés di altine jot ak jot bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu maanaam 15 heures jàpp 17 heures kenn bëggul bu Seex Seydi Mouhamadul Moustapha si daal moo gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi kon nag jaarama kenn bëggul bu Seex Seydi Mouhamadul Moustapha si